Euh, monsieur le maire ñoo ngi lay nuyu. waaw ah, ñu ngi nuyoo di fay di nuyu ñëpp tey ñu nekkoon fii ci goxu Caaroy Géej xew-xew ak tiis bu miti dal fii ñu boom ki nga xam ni moo di Ndioba sekk euh, tey en tant que autorité bi nga yëgee xew-xew boobu euh, lan la def ci yow. waaw li ñu mën a wax rek ñu ci yëg mooy euh, yëg lu nga xam ne naxar la ak tiis ndax nit ku génn àdduna rek daanaka dina indi naxar ak tiis ci askan wi waxuma laa nag mu génn àdduna ci anam yi nga xamee ne noonu la Ndioba génne àdduna moo tax tiisul nañ ko lool naxarlu nañ ko lool lu ñuy mujj rek mooy dellu ci yàlla subhaanahu wa taala suñu borom xam ne moom mooy dogal te lu mu dogal loolu mooy am waaye ñu ngi koy naxarlu di ko tislu mu nekk nii. wax mel nii ñu mën a jàpp ni village lañ ko mën a tuddee waaye gis nañ boobu ba léegi population bi ñu ngi lay ci wàllum sécurité euh, ndax mën nañoo xam ba xam sécurité dafa manqué wala. Ah, defe naa ne dégg nga askan wi li ñu wax nee nañ la mosu fi am lii léegi la dem ba am fi kon mën nga jàpp ne sécurité amoon na fi waaye sécurité dafa tëdd ci ay mbir yu bari maanaam ay paramètres yu bari li ko njëkk mooy nit ñi nga xam ne ñoo fa dëkk muy askan wi li ci des mooy suuf si nga xam ne dañ ko dëkk li ci des itam mooy mesure d'accompagnement yi nga xam ne moo war a ànd sécurité mooy wàllu lu mel ni éclairage publique lu mel ni aussi mbedd yi fexe ba nit ñi mën fa jaar mais wàllu itam li ñuy wax la sécurité technique muy wàllu police ak gendarmerie loolu lépp ay paramètres la yu nga xamee ne moom mooy dox ci biir dëkk mu dajaloo ñu mën a am sécurité Caaroy lii suñu ko fa am fàttali ko wuñ na fu mos a amee kon nag sécurité daan fi am waaye xam nañ ne askan wi dégg nga li ñu wax ne dëkk bi na mu meloon ak na mu bindoo bindoo ko parce que am na ñu dollu ci dëkk bi am na ñu dugg ci dëkk bi dëkk bi màgg na itam te su màggee rek mën na dugal ci biir dëkk bi lu nga xamee ne nekku fi woon waaye mu dugg na fi léegi dafay waral nag loolu ñu jëlaat yeneen matuwaay pour gën a mën a taxawal li nga xam ne mooy sécurité te loolu itam ñoo ngi ci ndax fii ñu toll nii ci wàll wi nga xam ne wax nañ ko ci wàllu état di ko dox ak wàllu li nga xam ne moom mooy euh, armée bi. fex dox nañu ba li nga xamee ne moom mooy gendarmerie bi ñu war a bëgg am bëgg nañ ko indi fii ci caaro yi ba jàpp nañ ne dinañ ko indi fii ci caaro yi géej ci wàllu quai te loolu pour fexe ba caaro yi am lu mel ni lu yëngu ci wàllu sécurité muy gendarmerie ak police comme caaro yi nag gendarmerie moo nekkoon ci moom ah, am na ay matuwaay ak ay ah, taxawaay yi nga xam ne taxaw nañ ko. ba fi mu nekk nii mën nañu wax ne loolu lu tuut li moo ci des rek diggante ministère de la pêche ak ministère bi nga xam ne mooy yor forces armées ngir ñu mën a fexe ba gendarmerie ñu indi ko fii ci caaro yi te loolu soree nañ ci trop loolu nag suñ ko ci dollee dinañ yaakaar ne lii ñu fiy gis yu bees yi nga xam ne ñu ngi ko fi gis yooyu dinañ gis ni yaakaar ne dina am lu koy far dina am lu koy dindi ba loolu dootu fi am ba lii nga xam ne dund nañ ko ci wàllu njóoba duñ ko fi gisati nangoo nañ ci ñenn ci population bi ñu ne ginnaaw bi xew-xew bi amee dañ ni leen euh, police bu ginnaaw raay amu fi accès. ndax loolu du manquement. waaw xam nga xam nga loolu loolu loolu loolu mënuñu wax ne manquement la ndax euh, état dañ ko organiser te état bi ni mu organiser woo mooy dëkk bu nekk dafa am police buñ ko jagleel wala gendarmerie bu ñu ko jagleel police su ginnaaw raay dañ ko jagleel ginnaaw raay. ba nga xam ne moom la ne ak ginnaaw raay noor li nga xam ne mooy caaroy géej ak caaroy gaar dañ ko jagleel gendarmerie bu caaroy ñoom noonu la ñuy liggéey ci seen wàll wi nga xam noonu lañu ñu la ma ciy wax kay mooy bu fekkoon ne ñaari policier même bu fekkee ne kenn ku ci nekk am nga sa zone de prédilection maanaam fa nga yëngatoo man yaakaar naa ne war na maanaam ay passerelle war na am ay connexion yu nga xamee ne police bu jëkk gis dara wala nga gis lu nga xamee ne àndul ak yoon nga mën a intervenir ci zone ba nga xamee ne même bu sa zone sax nga mën ci intervenir loolu mën naa yaakaar ne mën naa ñaan ne loolu war nañ ci mën a am waaye ci wàllu organisation moom la ñu tëralee lu mel noonu waaye organisation nit a koy def doomu aadama koy tëral defe naa ne war nañu mën a tëral tey jii caaroy poli gendarmerie bu caaro yi doon jaar ginnaaw raay gis fa lu nga xam ne naka sudul noonu moo mën fa dugg wala mu dégg fa lu nga xam ne nekk naka nekk na naka sudul noonu moo war fa dugg noonu la police yu itam ñu mën a wax ne man na di dugg caaroy itam bu gisee naka sudul noonu pour fexe ba lépp lu nga xam ne gis nañ ko ci maanaam teel teel bi nga xam ne noonu la war a mën a taxaw ba fexe ba loolu mu fànq ka ba dootu fa am mu war fi mën a dugg loolu tam nañ ko wax ndax itam mën nañoo xaarandi ci justice mu def yoon ba lu mel nii dootu fa amati ci gox bi. loolu la ñuy xaar loolu la ñuy ñaan loolu la ñu yaakaar ne moom mooy am itam ndax caaro yi gépp dégg nga ni ñu mel bi ñuy enterré bi ñuy denc ñoom ñëpp ak wax ji nga fi dégg amul kenn ku sa xol neex te xol bi lu ko mën a mënul sax neex ndax te ku génn àdduna génn àdduna ci anam bi mënul a neex waaye lay dalal xel yi ëllëg mooy lu mel nii ñu fexe ba leeral ko lu mel nii ñu fexe ba ñi def ñu fexe ba niit ko ba xam ñan la doon bu ko defee ñu mën a dal la nga xamee ne moom mooy ay yaraange ñu war a teg ci seen kaw ñu teg ko ci ba beneen doomu aadama du ko defaat ëllëg. en tant ci gox bi lan ngay xam ni moo l'intérieur di Aly defe naa ne wax nañ ko liñ ministre de l'intérieur liñ ciy xaar moom la askan wi yëpp di xaar ndax moo yor sécurité publique bu état sécurité publique loolu lépp ci la maanaam ci wàllu police ci wàllu gendarmerie waaye ci wàllu askan witam tam ni ñuy doxalee parce que police nekkee ak gendarmerie te ñu bàyyi askan wi ñenn ñi di jëfandikoo yu nga xam ne dafay tàggale ak la leen tàggale ak seen sago lu mel nii dafay am wala yu nga xam ne niiru na ak lii dafay am moo waral nag ministère de l' intérieur moom mi yor police te en nekk nag en relation ak ki nga xam ne tam mooy ministère des forces armées yor gendarmerie war nañoo gën a mën a yokk seen saytu ak seen taxawaay ci wàllu police ak gendarmerie ngir nit ñi nga xam ne ñu ngi ci wàllu li nga xam ne mooy euh, yàmba ñi nga xam ne itam ñu ngi ci wàllu sàngara si ak yeneen yu nga xam ne sax ñoo gën a yomb ci dëkk bi nga xam ne ñaar fukk sa boo ko amee sa man ko jënd lu mel noonu ñoom it ñu taxaw ci ba loolu ñu dindi ko loolu ñu fànq ko ci dëkk bi ba loolu du fi amati bu fi amatul rek yaakaar na ne yu mel nii incha doot xam nañu ne ñun ñëpp lu ñuy wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci yàlla lañuy ñu jóge aussi ci yàlla lañuy dellu waaye naxar bi nga xamante ni tey moo wàcc si njabootu caaray géej gépp ñu gën koo miin ci caaray sur mer di dëkk boo xamante ni moom la ñuy wax dëkk ba Baye Balla Niang nekk euh, ki nga xamante ne mooy maire commune bi di Moussa Ndiaga Niang tey gox boobu ngeen ñëw gox bi itam wax dëgg yàlla ba ñu déggee tiis bi a ah, ñun ñëpp bokk nañu jaaxle ndax lébu benn bopp lañu bu lenn laalee nit rek mën nañu wax ne laal na ñépp kon tey lii am nii mën nañu wax ne mboolem fukki penc yi ak ñaar ñëpp ñoo ko yëgandoo ah muy tiis boo xamante ni nag altine bu doy waar la woon te wax dëgg yàlla. caare yi mosuñoo xam lu mel nii njóoba nag nekk xale ndax li tax ma di nekk xale mooy ku amagul fanweeri at daanaka gune nga a ah, ñu ñëw xale boo xamante ni nekk ci digg àddunaam war a jëriñ boppam wara a jëriñ ay waajuram war a jëriñ ay famem ñu ñëw boom ko nii. vraiment am nañu lool lu ñu touché. waaw lu ñuy wax tam aussi wàllu sécurité suñu waxantee dëgg rek ndax nit moom làmmiñ ñaar moo ciy génn mooy dëkk biy génn ci làmmiñ wala wax naka sudul noonu te loolu yàlla nañ ci yàlla musal suñu waxee encore une fois ne dëkk bi sécurité amu fi lii tey dal suñu doom. wane na ko ndax li tax ñu ne sécurité amu fi aussi moo di que ne tey problème bi fi mën a am ñun ñëpp dañuy mujj obligé dem ba au niveau de gare Thiaroye gare gendarmerie Thiaroye gar du ko fa rek boo xoolee longue distance boobu ak fii nga xam ne tam police ginnaaw raay daanaka mi ngi nii te ñoom dañ ne police ginnaaw raay amul abse fii gendarmerie moo am fi abse mais sécurité bu buñ dee wax dëgg te yàlla tax sécurité moom amul ci dëkk bi. donc li ngeen bëgg mooy sax un poste de police waaw nit moom su nee sécurité amul rek mooy ñun lu ñu njëkk demandé mooy y a des espaces yoo xamante ni ñu ngi fii au niveau de quai bi am na espace boo xamante ni vraiment war nañ fa mën a def police wala gendarmerie ndax itam nit olof day wax ne. bala nga naan naam na nga fa fekk nga ne fa mais bu fekkee ne da ngay bëgg a dox daanaka sa dox dund warayaan lay doon loolu encore une fois dañu koy demander ki nga xamante ni mooy monsieur le euh, euh, euh, monsieur le maire monsieur Ndiagaña moom la ñuy demander que yàlla dogal na moo nekk ci maire commune bi. tamit ki nga xamante ni mooy Aly Ngouille Ndiaye bi nga xamante ni moo yor ci wàllu sécurité bi aussi di ko demander di ko tàllal loxo ngir ka ñu jàppale ñu ci sécurité caaro yi ndax itam loolu bu ñu ko amee dina doon loolu lu ñu gënal ndax itam nit méritowul ay fayu fayu bu amee rek day mel ni yoon dafa liggéeyam te yàlla nañu yàlla musal ci fayu ñu bëgg nag encore une fois lii bañ fee amati te lii li pour mu bañ fee amati moo di ko force ñuy ñëw ci gox bi nekk ci sécurité doomu aadama ministre bi vraiment euh, gisaguñ ko te njabootam la ndax buñ la dénkee euh, euh, wàllu sécurité yaakaar naa ne responsable bi lépp ci yow la kon encore une fois ministre bi vraiment war na ñëw fii. toog ak ku mel ni monsieur le maire ou bien mu toog ak les délégués de quartier pour que ñu xool ñoom lu ñuy doxalee pour sécurité jaamu yàlla yi fi ne.